suñu parce que waaw koor yi yàlla daf ñu wax ne nii bu ñu wooree woor bu sell dañuy raxas suñu xool yi euh, waaye man ma ciy dolli rek ne mën nañ ci aussi raxas suñu yaram yi mën nañ ci am wérgu yaram parce que gis nañu ni nit ki su wooree woor bu sell ci fanweeri fan yu ramadaan yi que loolu mën na ko indil mën na raxas bu butitam bu ñuy wax le côlon ba nga xam ne daf koy détoxifier maanaam dindi salte yi ci nekk nit kooku aussi bu fekkoon dafa am ay euh, sukkaru suukar bi nekk ci deretam la doon faral di yéeg loolu dina wàccal c'est que euh, ñu am tension wala tension boo xam ne daal stable euh, tension boobu mën na dem ba normal ci koor boobu euh, et puis aussi mën na tax ba nga xamante ne lii nii woor bu sell ba koo xamante ne dafa amoon graisse ci biiram wala graisse ci yaramam rek mën na dem ba nga xam ne graisse boobu aussi dafay seey mm-hmm. loolu yëpp ci kaw nit ki woor woor bu sell kon naka lañu mën lekk ci koor gi. alors bi njëkk mooy nañ jàpp ni nit ki foog mu mu xëdd te xëdd mooy rek nit ki euh, am na ñu bari ñoo xam ne bëgguñu yeewu teel a yeewu pour xëdd looloo tax duñu lekk. te loolu baaxul parce que ça veut dire que ki dina dem lu mat ñaar fukki euh, waxtu ak ñeent te du lekk parce que reer ba reer lañu lekk. donc nañu faral nañu teel a tëddi pour mën a yeewu fajar euh, balaa fajar xëy na benn waxtu avant fajar pour mën a xëdd xëdd boobu nag moom mooy ndékki rek. Euh, te ndékki boobu mooy li ñuy wax toujours ci ci composition ndékki bi yow yaa xam na da ngay jël sa mburu def ci sa tuuti sa nen sa thon sa sa euh, fromage wala yeneen jël euh, sa li ngay faral di naan sa café wala sa meew euh, ak xëy na benn fruit wala def ci ay euh, tànnarma loolu lu baax la pour xëdd mooy lekki waaye am na yoo xamante ne nañ ko moytu ci xëdd bi benn bi mooy nañu moytu café bu foor a foor ci xëdd wala ataay bu foor a foor parce que bu boobaa dafay gaaw a génnee ndox mi nekk suñu yaram te comme ñun du du ñu naan ndox dafay tax ñuy gaaw a mar gaaw a ci bésu koor mm-hmm. beneen bi mooy nañu nañu surtout bañ def ci xëdd boobu def ci ay viennoiserie maanaam ay croissant ay pain au chocolat ay cake ay gâteau parce que bu boobaa euh, dañuy euh, suñu yaram pour mu digérer loolu daf ñuy laaj énergie bu baree bari te amuñu ko puisque duñu lekk ci bés bi moo tax ñu bari lañ lay naan man su ma xëddee ci lay sonn si euh, la koor gi di metti ci man parce que bu boobu fekk na seen xëdd moo jaarul yoon seen xëdd dafa amoon graisse bu bari torop Euh, alors xëdd bi aussi nañ ci euh, bañ a def ay charcuterie maanaam ay jambon ay ay euh, ay saucisson lu tax parce que loolu dafa bari xorom te xorom bi bu baree nit ki dafay gaaw a mar également ci bu bu bu donc daal day xëdd bi day nekk nit bu normal bariwul suukar bu bariwul bariwul graisse. d'accord.